salle des congrès donc kooku boo demee xalaat ni euh, musuma xalaat sama xel ni euh, l'enfant de Colobane peut-être un jour aura à parler ci euh, kuréel gu toll noonu la salle des congrès au nom au nom de l'Afrique donc daal man je dois tout à la culture peut-être nag am na xëy na ñu si bëri il m'attendait dans le volet sport parce que j'ai euh, dama def teel a def sport teel a génn euh, teel a football comme ni ko laaj yow waxee dama def côté inverse bi nit ñi dañ daan football fii soo ko dem France. depuis bu njëkk ba Batouala avec René Mara yooyu xalaatuñu woon am na peut-être ñu ko waroon am avant te amuñu ko Senghor mosul am prix Goncourt. musul am prix Nobel et cetera et cetera loolu aussi euh, liggéey la en profondeur liggéey la mais nouvelle écriture la